ay Birame ant Cissé mbay mbacé mbengen Al Demba Mané cham mbokk tay ñu fas waxtaan ak yeen ci lo am solo ci lo xamanteni rew mi yeb dañu koy taamu ñu ñew tay man Alaaji Ñuuxi Puy fas ci waxtaan ak yeen li nga xamanteni dañ ci bëgg waxtaan ak yeen di lo am solo lo xamanteni aduna ñepp ko bàyyi xel may waxtaan ci askan wu yaatu saan askan wa su ma koy wax su ma tuddee ay réew ñu xam ne askan woowu fépp la am askan wi mën naa ni askanu Sénégal di askan wu yaatu man mii fa la cosaanoo alaaji Tan Bombe fa la cosaanoo alaaji Pako ma ca Cees fa la cosaanoo Big Mama fa la cosaanoo ak ay kilifa yoo xam ñeme mu leen a tudd waaye foofu la ñu cosaanoo foofa nag di réew mu rëy di askan wu rëy askan wi nag di askan woo xam ne kenn mësu koo yàpp ci fullaam faydaam ak fullaam lu tax ma ni fulla ñaari yoon ndaxte askan wi kenn ku ci nekk boo ne ko jàkk da xam ne kii dafa am fulla ñaari yoon boo ko woowee ci lekk mu wuy la ci fulla ñaari yoon soo ko woowee ci naan mu wuy si la fekk la ci ñaari yoon askan woowu nag mooy askanu lex askanu leex di askanu yaatu di ci béggee képp koo xamante ni yaa ngi am leex am na sama xarit boo xam ci askanu leex la bokk ma nga fële ca boor yi marché HLM di fa jaay màdd ñu naan ko Aysatu Faat Fall moom boo ne ko jàkk xam ne ci askanu leex la bokk te mosu koo yàq di ko am ku am fulla ko am fayda ndax ñun askanu leex dañoo am cosaan sunu maam mësta bàyyi ruy romb ko sunu maam mësta bàyyi sommi romb ko sun maam dara musu ko ñu askanu lex kon tey bu may day wax ci askanu lex war naa cee wax xanaa rek ñu yamale ko foofu di wax ni askan wi war nañ cee wax lu yaatu askanu leex askan wi nga xamante ni <laughs> nee naa la bu ma tuddoon tey ñi bokk ci askan wi fii la ñuy fanaan waaye nag dañuy bàyyi rek wuy lexooy wuy lexooy woy lexoo woy lexoo woy lexoo mu ndey saan xale bu ma saan a juddu boo amee lex ñu naan ko lexu beñe